lu baax la ci Sénégal ak aussi la mémoire des de de des victimes. Euh, la déchirure sociale moom dafa dafa profonde euh, te dañ ko war a réparer. Mm -hmm. te am nga parfois dañuy dañuy wax ci suñu tradition ne ñu nettali xuloo xuloo lay indi. Mm -hmm. euh, c'est vrai ñi nga xamante ne dañ seen mboom seen njaboot ñu leen di jaale encore une fois di leen di masaw ndax waajur bu ñàkk doomam ci yu mel nii dafay am déchirure bu bu bu buy nekk ci yow. kon yal na leen yàlla dooleel euh, da ngay bëgg am aussi envie xam dégg bi fu mu féetee mm-hmm. euh, mais fii ñu toll nii déjà avec les les blessures profondes de notre société sénégalaise je pense que danañu war dañoo war a balante ak dépasé mbir mi mm-hmm. boo xoolee suñu kër yi sax problème dafay am bu ñu koy régler boroom kër gi kilifa bi nga xamante ne moom la ñëpp yaakaar bu ñëwee dafay ne dama bëgg ngeen teg lépp ci suuf. Mm-hmm. bu ko defee ñëpp mën a dem sur de nouvelles base donte xam nañu ku nekk li mu def kon man pour man foofu la ñu toll tey. Mm-hmm. et dañuy ñaanaat encore une fois. Euh, ñoom ñëpp ñu am cet esprit de dépassement on doit pardonner ñoom dañu war a pardonner. mais justement est-ce a le pardonner ñi nga xam ne ñoom la ñu euh, tooñ mais également le sénégalais rek bi nga xam ne jàpp na justice def dafa def liggéeyam. waaw justice dafa war a def liggéeyam mais dégg déggoo li ma la wax tout à mm-hmm. l'heure maa ngi la naan conseil constitutionnel man dama jàpp ne daf ñoo tooñ mm-hmm. pourtant on est prêt aussi à laisser tomber pour que ñun ñëpp ñu progresser ensemble évidemment man tooñ bi ñu ma tooñ tolloowul ak ki nga xamante ne ñàkk nga sa sa doom mm-hmm. wala ñàkk nga sa alal tolloowul mais je pense que ñoom tey jii bu ñu pardonné s'ils arrivent à pardonner te maa ngi leen koy ñaanal bu baax ñoom si seen bopp d'abord dañuy nekk en paix dañuy pardonner d'abord pour eux-mêmes mm-hmm, mm-hmm. parce que tant que pardonné wu loo yow toujours euh, douleur boobu day des ci yow mais boo pardonné da ngay libéré wu donc en en pardonnant à l'autre on se libère